yàlla nañ ko yàlla defal sëriñ bi ñoo ngi doolee sant Cheikh Abdoul Fatah Mbacké cant gu wér bis buñ gée xëyee di ko gën a sant ndax yoon wi mu yoon wi mu ñu teg ak yoon wi mu leen teg kon ñu ngi ko ciy sant ndax yoon wu yoon wi mu leen teg kat ñun la ko defal ndax bu ngeen meloon neneen nit ñu ànd ak yéen kon ndokk bi nga xamante ni yoon wi leen Cheikh Abdoul Fatah Mbacké xàllaloon wàccu leen ko ëpp leen ko yeesu leen ko yal na ci yàlla gën a jàpp ba ngeen am téeméeri at yu tegal ci barkeb Serigne Touba mbooloo mi nee nañu sëriñ bi ñi ngi ñaan yàlla nga yàgg fi lool ndax am nañ ci yaakaar lool ndax li nga leen won ndax kat bi fi Cheikh Abdou Fatah jógee ba léegi léebu defi fan waaye gisuñu la nga soppiku ci doxin gisuñu la nga soppiku ci waxin yaa ngi toog ci kër gi di diglu ndigal jëmoo fenn duggoo ci dara lu may toog di jaamu yàlla téye sa kurus loolu nag xam nañ ci lu wér mbooloo mi ne ñu ngi ñaan yàlla yal na la yàlla aar aar njabootu Cheikh Abdoul Fatah gépp mbooloo bi nag waa Touba la waa Taïf waa Bayla waa Tindodi waa Nayde ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom ñëpp seen xol sedd nu guyu ci yow ñu ngi lay ñaanal sëriñ bi mbooloo mi nee nañu ñu ngi sant cant gu wér de ndax yokk nañu. ba yëg ni ñu ngi yokku kon yëg nañu ñaan yi leen di ñaanal yëg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax xanaa di ñaan doo leen waaye jàmbatuñu dara de ñu ngi sant yàlla bu wér jàmbatuñu dara ndoo leen rek la ñu ñaan waaye ñu ngi sant di ñaan yàlla yàggal la fi waxtu wi daa guddi liñ ci waroon wax lépp bari na waaye jërta jërta guddal mbooloo mi daal sant nañu gërëm nañu ñu ngi fàttaliku nag. ndax am na jàmbaar yu ñu àndaloon ci eh, liggéey bii danañ ci tudd ñaar ñu yóbbaale ñi ci des muy Ousseynou Ngom ak Bara Sylla ñu yóbbaale ñi ci des ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yokk seeni leer leeral seen bàmmeel boole nekk Cheikh Abdoul Fatah fa ñu ne mbooloo mépp ñu ngi leen koy ñaanal ndax àndoon na ñoom ñun àndub rafet àndoon na ñoom àndub jàmbaar ndax mbooloo mi ah, xam naa kenn mënu leen ci de buñ ci mënut kenn mënu leen kenn mënu leen ci woon kon ñu ngi leen di fàttaliku bu baax ak ñi àndoon ak ñun ñëpp ce wujji tey suñu borom ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàggal la fi yokk sa wërsëg yokk say xéewal ci barkeb Serigne Touba Mbakke Serigne bi mbooloo bi de xam nañ ni li gën a jafe moom nga nangu mooy nangu kilifa nangu kilifa na ko Cheikh Abdoul Fatah nangoo woon noonu nga ko nangoo Cheikh Abdou Fatah jëmm ji nangu kilifa bëgg ku ko yilif lool nangu kilifa lool tànk yooyee moom nga jël yal na la ko yàlla sàmmal téel la ko ba nga am téeméeri at yu tegal yaa ak say rak ci barkeb Sëñ Touba li ma liñ ma bëggoon wax loo nag ëpp na lii waaye daa guddi ca wax daa jafe lu ci dëng daal xam ne ni ci mën a waaye mbooloo mi moom seen yéene ak seen li ñu bëgg wax ëpp na lii jërë ngeen jëf yal nañ ko fekkee déwén. nee na yéen mbooloo mi am na loolu mi ngi leen koy yóbbante ca kenn ku leen ko jàpp nee na lu doon sàkku Cheikh Abdoul Fatah nee na waat na ne boo ko sàkku ci jëmm ji am ko ndax Cheikh Abdoul Fatah kat jëmm ji la yóbbu waaye bàyyil na ko fi lépp ñun nag xam nañu bàyyi na fi lépp yóbbuwul dara jëmmam rek la yóbbu lépp a ngi mu bàyyi ak moom mii kii daal ñaanal leen ko fan wu gudd ak gu wér. ah mu jëwul posé bu mu réer de yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu gudd fan lool lool lool ci barke Cheikh Ahmad Bamba barke Cheikh Abdoul Fatah bisimilah in waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki julli li mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul mustafa ibnu Cheikh Abdoul Fatah sëñ bi nee na mi ngi leen nuyu yenn kenn ku nekk si trop ak santam di leen masawu ci coono yi waaye di safoo seen jëmm yi ak seen jataay bi ndax loolu moo tax bi mu jógee mu ànd ñi nga xam si ni ñoom la ko yàlla booleel ñu bokk Cheikh Abdoul Fatah ñu ràññee ci sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Fatah ak sëriñ Mouhamed Mbacke moom Cheikh Abdoul Fatah loolu nag li ko waral sopp leen bëgg leen am yéene ci yéen ba tax fépp foo xam ne bu fa jógee yéen a joojee yokk muy doxe noonu nee na mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen fàttali tamit li nga xam si ne nii mooy ndigalal suñu borom yi ndax suñu boroom moo ne fi indi am lu tax mu andi ñu fi moo ñu jaamu ko nee na kon ay doom ci loolu rekk lay njëkke moo ñu xam ne suñu borom dana fee indi ngir ñu jaamu ko lépp loo xam ne ña ngi koy defati te ndigalal suñu borom yi ñëw lu mel na waxtu ya ñu dagg suñu yitte yooyu yëpp dem joxe waxtu suñu borom yi ba noppi door a nekk ca la nekkaat nee na tamit ñu rafetal suñuy diggante suñ mbokk ak suñ mbokki jullit yi ndax suñ borom kat ku bari yërmaande la la nga ko def mën na koo jéggal waaye sew-sew ya am sa digganteeg sa mbokkum jullit nee na lool rek kooku dong moo la ko mën a jéggal nee na kon ñu bàyyi xel lool ci bu baax a baax ndigal yi nga xam si ne moom lañ suñu borom sant nee na ñu ci def suñu kem kàttan te yaakaar yërmaandeem waaye lépp loo xam ne suñu borom sant tere na nanu ko nan ko jéem a moytu nee na ndigal yi nga xam ne suñu borom sant nanu ko te sëriñ Muntaxa doon ñu ko fàttali ñu xam ne amuri moom fépp fu mu nekk foofu mooy Tuubaa ci moom noonu kon ni mu ko joxee ndigal fii nañ jàpp ne kenn képp foo man di nekk nga yëg ne ni nga war a wormaale dëmm ji dëkk bii di Tuubaa noonu nga war a wormaale dëkk boobu ndax tere yu loo xam ne suñu borom moo nu ko tere sëriñ sëriñ bi fàttali nu ko sëriñ bi dinu ko fàttaliwaat nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax tamit ci ànd gii ngeen ànd rawatina ni ngeen ko àndee ci daayira ndax nee na mënut a gis xalaat bu gën a raw bu gën a kawe xalaatub Serigne Cheikh Mbacke bii te daa wax ne xool naa yoon yi jëm suñu boroom mu toll ne nooy mbindee fi gis ma ci benn bu ci gën a gàtt bu du daayira ma jaar leen ma gisoon benn bu ci gën a gàtt daayira ma jaar leen ci nee na kon daayira bii ngeen nekk na ngeen ko gën a fonk gën koo jàpp gën cee góorgóorlu te xam ne. lépp lu sëriñ Cheikh digle woon ci daara bu ñu ko defee ni mu ko déggee woon incha allahu rabbi danañ ci jot. nee na mi ngi leen di sant bu baax tamit ci liggéey bii nga xam si ne ne moom la sëriñ Mountakha doon taxawee tam jotoon ko ci kilifa yëpp mu agsi ci moom nee na bi mu ci moom de wax dëgg yàlla mu ko jotalee agsi li ngeen ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla kawe nañ njortam moom yëg na le sagal ngeen ko sagal ngeen Cheikh Abdoul Fatah ndax andi ngeen fi loo xam ne wax dëgg yàlla kawe nañ njortam nee na kon loolu nag mi ngi ñaan suñu borom fa nga xam ne foofu la ko kilifa gi jëmee bu fa àggee lañ cey séddale yàlla bu leen si kenn ëppale nee na wax dëgg yàlla lool moom li def ngeen ci lu kawe njortam nee tamit ñu gën a góorlu comme ci daayira bii ndax ndigal yi xaj na fa lay jaar gisante bi fa lay jaar dimbalante bi fa lay daar nee na lépp loo xam ne jóge na ci daayira te war a jëm si ci moom tan gis am mbokkum jullit mu nekk ci liggéey bi te yittewoo ko nan ko ci yemale ndax Cheikh Abdoul Fatah Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke loolu la doon wax Cheikh Abdoul Fatah bi mu fee nekkee tamit loolu la doon wax nee na kon nga xam ne daal liggéey bi di daayira moom ñu gën koo fonk gën koo jàpp gën koo jox yitte ji nga xam si ne nii moom la yitte woo nee na loolu moom mu ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax a di soññee tamit ci bis bii nga xam si ne nii moom lañ dëgmal muy bis boo xam si ne nii bis bu bari yiw la bis bu bari tuyaaba la bis bu bari ngëneel la nee na ci taxawee andi seen i andi seen i addiya la nga xam si ne moom la Cheikh Moustapha ne ñaan naa san borom ba képp koo xam ne fanaan nga ci dëkk bi ci nin ko diglee boo xëyee set wecc ak ay bàkkaar nee na mi ngi ñaan sun borom ni ngeen fi ñëwee ba keroog ngeen fi delle yàlla na borom set seen bàkkaar wecc ak bépp jullit boo xam ne bëggoon naa ñëw te yéen a te mënut a ñëw nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di gën a am yaakaar ci yéen ndax liggéey bii nekk ci moom kat nee na fas yéene ànd kenn ak ku dul yéen na leen leer na daal mi ngi leen di déglu mi ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di nemmeeku bu baax a baax li sëriñ sëñ sëñ sëñ Abdoulaye Ndiaye wax léegi ne sagal na leen sagal sagal na leen waaye moom itam nee na sagal ngeen ko ndax tey jii bu fekkoon nekk ngeen ci leneen moom mooy jóg moom mooy woote moom mooy def leen waaye kenn mus leen a dégg ci lenn loolu nag li leen ko may mooy daayira bi ak déglu li nga xam si ne moom la suñu borom di digale ngeen koy def neen loolu moo ngi leen ci soññ bu baax a baax ton gën a góorgóorlu bis bi bu ñëwee ñu wàcc ci am njàngal xoraan ak xasida ak salaatu xala nabi waaye berneel mbokki taalibe yi nga xam si ne tamit dañ fiy ñëw nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal ñaan goo xam si ne ñi ci ab xolam la ko tibbee tafas ko yéene ñaan ñaan gu wér yéen ñëpp ngeen yëg ne bu ngeen jógee fii ni ngeen fi ñëwoon moom yëg ngeen ak yokk nan loolu mi ngi leen koy ñaanal baax a baax di ñaanal tamit waajuróom bi nga xam si ne moom moo nekk ci biir soxna maskooratu nee na mi ngi koy ñaanal bu baax ndax yëg na ne ni mu koy jàppalee yëg ak ak nekkam fi ni muy amee njariñ ci moom nee na loolu mi ci yéen tamit ngeen jàppale ko ci ñaan googu comme ni ko sëñ Ablaye waxee moom mooy suñu waajur mooy suñu lépp ci ci kër gi waaye nee na mi ngi leen sàkku ngeen ñaanal ko ko bu baax a baax rakkam yi tamit mi ngi leen di sant ndax kenn musu leen a dégg fenn te fu sëriñ bi jógee ñu ànd ak moom nee na kon yéen ñi nekk fii daal mi ngi leen di seedeel na rakkam yi nekk ci ay wetam mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen di leen ñaanal ñoom itam li nga xam si ne moom la Cheikh Abdoul Fatah liggéey ak moom mii li muy liggéey ñoom ñi kenn bañ leen ci ëppale nee na yéene na leen ko te mi ngi leen koy ñaanal te fépp foo xam ne bu fa demee ñaan loola ñu mën caa jot nee na ma koy def loolu ndax seenub taxawaay ci ci ndax nit kat bu amee ñu koy jàppale dana gën a dal xelam te ñii bokk nañ ci ñu koy jàppale ni ko waa daayira bi jàppale noonu la ko ay rakkam jàppale nee na kon ñëpp daal ngeen yëg ne sant leen sant goo xam ne am na commencement waaye amulub jamuwaay nee na lépp loo xam ne si ne mbokku jullit fas na ko fi yàlla na fi taseeg lu kawe njortam sëriñ Ousseynou Ngom moom ak sëriñ Bara tamit nee na mi ngi leen koy jaale li leen ko ñaanal ndax seena na seenub liggéey ak seen pas-pas ci daayira bii ngeen newoon nee na kon mi ngi leen koy ñaanal di leen jaale di leen yëg na moom mii moo ñàkk ñoo njax am na fu ko féete woon am na taxawaay boo xam ne daanañ ko taxaw di ko jàppale ci liggéey bi kon neen yéen ñi fi des yàlla na leen suñu borom sàmm te aar leen andil leen wërsëgu baree bari boo xam ne dañu ci mën a jaamu yàlla ndax xam na ne que lépp lu ngeen am dangeen ko ko andil ndax bëggu leen leen ludul ab sagam bëggu leen leen ludul li ko sëriñ bi sant mu def ko na ko bëggee te ànd koog yéen nee na kon mi ngi leen sant baax a baax te ñu dugg ci bis bi ak bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah kon lool mooy kàddu yi nga xam ne moom moo jóge woon sëriñ bi lépp lu si jub ñu sante ko suñu borom lu ci dëngate mu ñu jéggal ñu ko xam ne ku xeebu ku doon jot li waxi kilifa dana xaw a lool rawatina mu jëm ci ay waajuram kon loolu moo doon kàddu gi ñoo ngi jéglu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tuuta ànd ak dal mooy doomi Cheikh Fatma moo rëy jëftër moo rëy ndam ki moo sigal diine Cheikh Abdou Fataay borom Taayif taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mi tafa wir ga nañ ko it ci mi itam mosula war telum la wax loola la nar moom lum la dig faye ko bar kenn mosu koo gis mu bangam